bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala rasulihi al amin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu di leen dalal beneen yoon fii ci masjid Cheikh Abdallah ibn Abdul Aziz Ar-Rajihi xafisahullah di fi dalal tey suñu imam alimaam Abu Bakar Sall ngir mu daje ak ñun ci waxtaan boo xam na ñu ko tënkee xuququl Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bayna ahlil wafaa'i wa ahlil jafaa muy àqi suñu yonante Muhammad alayhi salaatu wa ci ñi ko matal ak ñi ci gàttanlu loolu mooy te mu waxtaan wi nga xam ne suñu imaam moom la fas yéenee jàngalante ak ñun bismillah imaam nag ñëpp xam nañu ko suñu papa la wootekat la borom xam-xam la dëkk Parcelles Assainies jiite fa jumaa ji masjid Omar ibn Khattab radiallahu anhu nekk amiru daawa ci xarakatul falaax asalafiya kon ñu ngi dalal imam ci jàkka ji di ko ñaanal yàlla tawfiq di ñaan mbokk yi itam ñu taataan li imam di indi insha allahu taala barakallahu fikum jamian ahlan wa sahlan wa marhaban bil imam asalaamaaleykum wa rahmatullah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 sax leen ci loolu ba bu leen dee ñëwal lu dul fekk ngeen nekk jullit ñi jébal seen bopp yàlla naka noonu yàlla subhaanahu wa taala woo mboolem nit ñi ne eeye nit ñi na ngeen ragal seen borom bi leen bind ci benn bakkan mu bind ci bakkan booba soxnaam sa mu wesaare ci ñoom ñaar góor ñu bare ki jigéen muy aadama xawa na ngeen ragal yàlla mi ngeen di woote ci aw turam yàlla mi nga xam ne ci turam ngeen di laajante ragal leen ko te it na ngeen ko ragal ci mbokk gi dox seen diggante na ngeen xam ne fu ngeen mën a tollu yàlla subhanahu wa taala mu ngi leen di contrôler yàlla subhanahu wa taala woo ñi gëm ne leen yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla te ngeen di wax wax ju jub kon yàlla baaxalal leen seeni jëf jéggal leen seeni bàkkaar na ngeen xam ne képp ku topp yàlla ak yonentam kooka texe na texe gu mag gannaaw loolu yi lu gën a dëggu ci li ñuy waxtaani mooy téere yàlla bi waaye ak aku doxalin wu gën a rafet wu ñuy roy mooy njubug Muhammad sallallahu alayhi wa ñu xam ne lu yées ci mbir yi mooy lu ñu sos ndax lépp lu ñu sos bidaa la lan mooy bidaa mooy li nit ki tëral di ko doxal jublu ci ak jaamu yàlla bëgg ca tiyaabo te jaare wu ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp bidaa cànkute la te bépp cànkute safara la jëmee borom yàlla nañ ci yàlla musal gannaaw loolu mbokk yi ñu ngi séq ngeen tey benn jataay bu xam ne li ci njëkk li ci jaaraa njëkk a xippi bët mooy ñu xam ne xam-xamu diina mooy mbir mu gën a màgg mu jullit war yittewoo lu ko def mooy ne diinaa yàlla ji subhaanahu wa taala yàlla daf koo bàyyiwut ci xeli doomu aadama yi bàyyiwut ko ci ab juddu loolu tax ki gën nit ñi bi ko yàlla yónnee njëlbeenu ak yónnentam mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njal beenu yonentam yàlla subhaanahu wa taala daf ko sóob ci yoon woowu di yoonu xamlu iqra bismi rabbika allati xalaq xalaqa al insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram allati allama bil qalam allama al insaana ma lam yaalam yàlla subhaanahu wa taala li mu njëkk a wàccee ci yonentam mooy jàngal jàngal ci sa turu borom mi nga xam ne moo bind lépp borom boobu bind doomu aadama ci lumbu deret jàngal te xam ne ku tedd sa borom moo ko teral te mooy mooy ki gën a tedd lépp mooy ki xamal xalimba ga mooy ki xamal nit lu xamul woon loolu moo tax mbokk yi xam-xamu mooy caabi ji ubbil jaam bi pour mu xam ak jaamu yàllaam mooy caabi ji ubbil jaamu gi ngir yàlla nangu ko mooy yoonu wéral jaamu gi moom xam-xam boobu mooy yoon wii tax nit ki mën a jooxe jaamu googa ca na ko yàlla gërëme ndax bari na lool ku bëgg lu baax di nar nari ci fekk dajeewu def lu baax loola comme ni ko ibnu masud waxee radiallahu anhu kam min muridin lil xayri lam yudriku bari na lool ku bëgg lu baax te dajeewu dag moom lu tax daf ko jaaralewut ca yoon wa mbokk yi ñu xam ne jëf jum mën doon ci diina deesu ko nangu su dëppoo wulal ndigalul yàlla ñu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sellal ca yéene ngir yàlla doon loolu moo tax yow sama mbokk jullit su fekkee dëggantaan da ngaa bëgg a bokk ci yàlla nangul ne ñoo ko ragal il faut nga yittewoo xam-xamu diina il faut nga yittewoo xam diina ndax ñoom la yàlla ña ko xam ñoom la yàlla seede ne ñoom ñoo ko ragal ca dëggantaanu ragal ga te loolu jafewut pour ñu xam ko kenn ku nekk ci ñun na xool kemtalaayul na mu xamee mbir mooy kemtalaayul na mu koy ragale jaan day jaar ci ëtt bi xale bi raam bëgg raam ba yegg ca ngir jël ko foye wala ngir jël seex bay na maa baayam bi xam ga jaan bu ko gisee la muy njëkk a def mooy këf xale bi rawale ko wut yet wu gudd di yóotu jaan bi mbir mu nekk yaa ngi koy ragal kem tulaay nañ ko xamee loolu moo tax ñu war a xam ne yoon wi yeggale nit ki ca yàlla moom mooy xam-xamu sharia ci boobu départ lañu bàyyi xel gongee koo ndoor ak yéen ngir géem kemtalaayu lu ñu yàlla jàppandalal ci waxtaane benn tomb bu xam ne mu ngi bokk ci tomb bi xam-xamu sharia boobu ñu doon dunji tomb bi mooy lan mooy xuququl mustafa sallallahu alayhi wa sallam bayna ahlil wafaai wa ahlil jafa aqi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante ñi nga xam ne dañu ko matale ak ñi nga xam ne dañ caa gàttañlu wala ci beneen waxin worof wu gën xóot ma ne ña ko fullaal ak ña ko soofantal euh, waxtaan wi ni ngeen ko déggee ab tënk bu xam ne ñi tànn thème bi dañoo def ab cax jox la cax boobu ñu jox ma mën naa koy furee nu dëppoo ak ñoom nañ ko mooñee waaye mën naa ko furee nu wuute am nañ ko mooñee ndax ab cax la bu xam ne lépp ngi ci biir lu mën a xew dinaa jéem ci ndimbalul yàlla kemtilaayu kàttan ànd ne thème bi biñ ma ko waxee ni ma ko tasawuri ni ma ko imaginé dafa doon laaj ñeenti wàll genn wàll gi mooy àqu yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam geneen wàll gi ci biir àq yooyu ma seetlu ca benn bu xam ne dama koy def morso boppam ndax gis bu ma gis mu am solo ci wàll gi ko mottali mooy cofeel yonent bi sallallahu alayhi wa ndax te cofeel googu dëgg-dëgg ca la ñuy mën a xàmmee diggante ñu matale àq boobu ak ñu ko soofantal àq ya bari nañu waaye ma soppi ca benn àq def ko mu nekk morso ci waxtaan mooy àq cofeel ngir gis ne cofeel gi mooy seetu bi gën a mën a ràññetle diggante ña matale ak ña soofantal su ko defee ci diggante boobu gisoon naa ne am na beneen morso bu fa war a nekk maanaam gannaaw cofeel morso ëppal waroon na faa nekk su ko defee mor soob soofental soog a ñëw waaye nag gannaaw damay làmbatu mënuma firi géntub jàmbur ci yi nga xam ne ñoo tënk euh, mawdo bi ni ko déggee tax na mor soof soofental ba dama ko xaw a euh, ëmbaale ci lu dul ma boole ko ci morso yi nga xam ne moom laa dogal dëgg-dëgg waxtaan wi ngir jàpp ne cofeel gi am na euh, astafra dama ne euh, morceau bi moom laa jox doole kon ak cofeel gi su ko defee tànqam lu waale morceau ëppal bi ngir jàpp ne su ma yaatalee ci cofeel yaatal ci soofantal déggkat bi dana ci xàmme waale ëppal ga ndax maa ngi ragal moos ci biir fi may jaar ci sofe ci cofeel ne dana am ñenn ci ñun ñuy askanoo ci sunna boo sàggane ñu ngi ko doon bëgg a yeggale ci ëppal waaye suñ tuddee àq yi nga ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na ko ci xeet bi tudd cofeel gi nga xam ne àq bu ràññeeku la bu beru bu mu am ña matale woon àqam nuñ meloon ca cofeel googa ba pare ma indi soofental yaakaar naa ne danañu mën a noppi waale ëppal am na itam balaa may dugg ci biir wax bi danaa wane ne soofental gi damay delluwaat di wax ne mënumaa firi géntu ñi tànn mawdoo bi waaye man damaa tànn soofental gi ñañ koy askane fekk ñu ngi ci biir lislaam ñu nekk ci biir lislaam ba mën ci fekk ne ñoo am taxawaay ca soofental ga man googu wàll laa tànn tànnuma soofental gu xam ne ña ca biti lislaam lañu koy askane ne ñoo ko soofantal yonent bi ndax xam nañ ne ñoom loolu mooy seen bind rek leneen lu ñu fekk ci ñoom ci loo lu dul day bette waaye ñi ko ñàkk gëm moom soofantal mooy doon seen taxawaay su ko defee euh, laltaay googu dama bëggoon mu jiitu ngir kii dégg xam sama wax fan la jëm yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am ci xeetam wi ay àq yu bari yu ñu ko war a sàmmal ba ca jiitu mooy aqu gëm ko dëggal ko sallallahu alayhi sallam loolu bu ñu xoolee nusus yi ci ñëw ci alquran dafay nekk farata ju farataal ci képp ku bokk ci xeet yi mu dëggal lépp lu yonent bi sallallahu alayhi sallam indi bokk na ca loola li yàlla subhanahu taala di wax ne fa aminu billahi wa rasulihi wa nuur alladi anzalna wallahu bima taamaluuna xabir gëm leen yàlla ak yonentam bi ak leer gi nga xam ne dañu ko wàccee teg ko ci loxoom yàlla ku dañ kumpale ci li ngeen di jëf surtout taxaabu yàlla subhaanahu wa taala dellu wax mu ne فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون gëm leen yàlla gëm yonentam bi nga xam ne mënta jàng mbind yonent boobu nga xam ne moom ci boppam dafa gëm yàlla dafa gëm kàddu yàlla yi yonent boobu na ngeen ko topp ndax foofu ngeen mën a amee yàlla subhanahu wa taala del wax mu ne yaa ayuha alladina amanu ittaqu llah wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayni min rahmati wa yajcal lakum nuuran tamsuuna bihi wa yaxfir lakum wallahu gafuru rahim yéen ñi gëm yéen ñi gëm lañu wax ne gëm leen yàlla yéen ñi gëm ragal leen yàlla gëm leen yonentam bi nga xam ni moom la wàccee ci yéen moom la yebal ci yéen su ngeen defee loolu yàlla dana leen jox duubul pay ci yërmandeem te it dana leen defal leer gu xam ne ci ngeen di gindee ko ci seenu dundin wu leen yeggale ci njéggalul yàlla ak yërmandeem bu boobaa yàlla jéggal leen yàlla moom mooy jéggalaakoon bi mooy yërëmaakoon bi yàlla subhanahu wa taala ne wa man lam yumin billahi wa rasulihi fa inna aatadna lil kafirina saira képp ku gëmul yàlla ak yonentam na ngeen xam ne ñun yàlla pareel nañu yéeféer yi mbugal mu méttee métt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci bopp bi wa bima jitu bi dañ naa digal naa xeex ak nit ñi ba ba ñuy ne amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul te it ñu gëm ma man yonent bi ñu gëm itam li nga xam ne moom laa indi kon gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy dëggal ak yonentam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko yónni ci jinne ak nit yépp dëggal itam lépp lu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko mbaa mu wax ko te fekk dëggal googa xol bi dëggal day ànd ak seede su làmmiñ wi seede ci ne Muhammad yonentu bi yàlla la su fekkee ne dëggalu xol bi ànd na seede si làmmiñ ñu appliqué ko ci jëf ci ay cër ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi bu boobaa ngëm nga mat na waaye kon xam ne ngir gëm ko sallallahu alayhi wa mat fokk mu boole ñetti xaaj yooyu dëggalu xol seede si làmmeñ ak jëfee ci cër yi lu dëppoo lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi kon loolu mooy àq bi ñu njëkk a tudd ci àq yi nga xam ne xeet wi amee nañ ko yontu bi sallallahu alayhi wa sallam àqu ñaareel bi mooy war koo topp moom yontu bi sallallahu alayhi wa sallam war a topp ndigalam mooytoo mooy lenn ci ay ndigalam su fekkee ne gëm ko ak dëggal ko dafa war ci lépp indi dañuy yëgaare ne kon topp ko it ci lépp lum digle day di war ndax topp googu ci boppam dafa bokk ci lim indi yàlla subhanahu wa taala wax ci téere bi mu ne yaa ayuha alladina wa rasulahu wala tawallaw wa antum tasmaun yéen ñi gëm topp leen yàlla ak yonentam te bu leen wënkaay di jox gannaaw yoon woowa te fekk yéen a ngi dégg ab wooteem yàlla subhanahu wa taala mu ne wa ma aataakum rasulu fa xusuu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent bi indil jël leen waaye lépp lu mu leen tere bàyyi leen yàlla subhanahu wa taala ne fal yaxzar alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim na moytu bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy wuute ak ndigalam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lañ ca mën a jëlee mooy fitna ci àdduna ak mbugal mu metti ci àllaaxira wal iyaasu billah yàlla subhanahu wa taala delloo wax ci téere bi mu ne wa man yuti allaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يلقه نارا خالدا فيها وله عذاب مهين képp ku topp yàlla ak yonentam yàlla dana ko dugal aljana yu xam ne dex yaa ngay daw ca ron ga te loola mooy texe gu màgg gi na nag képp mooy yàlla ak yonentam dal di jéggi ay rëddam jéggi ay digalooxam dépassé limite ba yonent bi rëddoon képp def loola danañ ko dugal safara su xam ne ca lay sax ba fawwu te mbugalum doyadal la fay amee Abu Hurayra radiyallahu anhu nettalil ñu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa ne man ataani faqad ataa allah wa man asaani faqad asa allah xadis bu albuxaari muslim solo abu hurayra radiallahu anhu nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp ku ma topp man yonent bi képp ku topp sama ndigal kooko topp na yàlla topp na ndigali yàlla waaye képp ku xam ne daf maa mooy mooy samay ndigal kooka mooy na ndigali yàlla naka noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci xadis bu albuxaari yi solo ne kullu ummati yadxuluna aljannata illa man aba qaalu ya rasulallah wa man yaba qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne sama xeet yi yépp danañu dugg aljana ba mu des ku bañ ñu ne ko yonent bi kan mooy bañ a dugg aljana mu ne képp ki topp sama ndigal kooka dana dugg aljana ki nga xam ne mooma mooy kookaay kañu ne kaay dugg aljana mu bañ kon àpp ñaareel sunu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ñu koy topp ci lépp li muy digle bañ koo mooy ci dara ci li nga xam ne mu ngi koy digle ànd ak nag mbooleem li mu tere ñu bàyyi ko amma àpp ñetteel mooy roy ko naka fekkoon baatu taaxa wala baatu ittibaa yépp olof daf koy tuddee topp moo tax ma tànn taaxa abi ñu tuddee ko topp ndigalam baynama ittibaa ñu tuddee ko roy ko ci am njàngalem ci jëfam euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu ñu war a def royukaay suñu léppi mbir aw yoonam moo wara doon yoon wi ñuy topp ci sunu bépp càkkutéef yàlla subhaanahu wa taala ne yonent bi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaxfir lakum dunubakum wallahu gafurun rahim waxal nit ñi ne leen su fekkee bëgg ngeen yàlla muy dëgg ci yéen na ngeen ma topp kon yàlla dana leen bëgg te yàlla bu leen bëggee daf leen di añal añ ba mu leen di añal mooy jéggal leen seeni bàkkaar boole ko gërëm leen yàlla mooy jéggalaa kon bi mooy yërëmaa kon bi la subhaanahu wa taala mu ne wattabiuuhu laallakum tahtaduun ndéem jub rek ngeen bëgg fi ngeen ko mën a amee mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy ko yàlla ne topp leen ko ndax ngeen jub kon day war ci bépp julit muy dox ci kaw njubug yonent bi sallallahu alayhi wa taqoo ak sunnaam moytu lépp lu wuute ak loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ne nee na man raxiba an sunnati fa laysa minni képp ku bañ sama doxalin di tànn weneen kon waru gar la ci bépp jullit mu matale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci àq gooju muy àqu ñetteel ci tomb yi ñu teg di yu ñu war a matale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma àqu ñeenteel ci àqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ormaal ko wekk ko ni ko yàlla subhanahu wa taala leerale ci bi ne li tuminu billahi wa rasulihi wa tuazziruhu wa tuwaqiruhu na ngeen gëm yàlla ak yonentam te ngeen dooleel yonent bi te wek ko ormaal ko yàlla subhanahu wa taala ne yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqu llah inna allaha samiun alim yéen ñi gëm bu leen di jiitu yàlla ak yonentam na ngeen ragal yàlla te xam ne ngi dégg lépp yàllaay ki dégg lépp mooy ki xam lépp bañ a jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay feeñ ci doo wax ci menn mbir lu dul batam ca waxee doo jëf lu dul batamu jëfee wala mu digle nga roy loola dafa bokk ci wekk ormaal ko yàlla subhaanahu wa taala yeggale na ci ñun ormaal googu ñu war a ormaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa tajcalu ducaa arrasuli baynakum ka ducaai baadikum baada ni ngeen di wooxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu niroog ni ngeen di wooxantee bu dee seen diggante Omar Mustafa ali ila axiri amma muhammad sallallahu alayhi wa sallam war nañ ko ormaal lu romb loola nañ koy wooxee ci melokaanam bañ koo sàllalu ci aw turam mu ñu xoolee alquran ba alquran jeex ñeenti yoon la sàllalu yonent bi benn bu nekk dafa am lu muy saxal lu xam ne dafa laaj mu tudd aw turam sàllalu ko ngir saxal loola wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutilan qalabtum ala aqabikum muhammad nii de nekk lul ab yonent bu xam ne ay yonent jiitu woon na ko maa ndax bu dee mbaa ñu rey ko day tax ngeen dellu gannaaw ci seen diina foofa dafa laaj mu tudd aw turam dafa laaj mu tudd aw turam bu dee ca ma aay boobu ma wax mu ngi sootu Ali Imran bu dee ca sootu Ahzab ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatamu nabiyin muhammad nekkul lulut yonentu yàlla waaye nag du bàyyi kenn ci seen góor yi Muhammad du bàyyi kenn ci seen mukallaf yi ci góor yi waaye yonent bu yàlla la de ku tëj yonent bi boo doon xool yeneen ya ca desit noona lay tëddee dafa am li muy saxal lu laaj turam waaye yàlla mi ko bind moom ku muy ab jaamam mu yónni ko moom lépp terewut la ca des yépp buy wax rek nabi wala rasul nabi rasul nabi rasul moo tax euh, léeg-léeg ñenn ci ñun dañuy am sañ-sañ lool lu ñuy wax muhammad waaw yàlla def nangam ci muhammad kuy xool ci muhammad waaw ku muhammad nekk nang yaa xi nañ ko jox orma ji ko yàlla jox nañ koy wooxee ci melokaanam te bañ koo sàllalu ci aw turam lu fu xam ne aajo moo laaj ñu wax aw turam yonent bi sallallahu alayhi ormaal ko gannaaw bi mu faatoo gënu la tuuti dayo ormaal ko ca ba muy dund ormaal ko ak wekk ko ci bi mu faatoo dayoom gën tuuti ci waru ormaal ko ca ba muy dund ndax bu fekkee ne dund bi dañuy jàkkaarloog moom lay jógee ci moom yu ormaal ko gannaaw bi mu faatoo itam xadiisam yim fi bàyyi sunnaam sim fi bàyyi dégg aw turam jaar ci ay jeexitam jàngale am njàngaleem woote ci ab wooteem dimbale woote booba yépp dafa mën a taxaw gannaaw bi nga xamee ne génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam kon ñeenteelu ak bu ñu war a sàmmal yonent bi sallallahu ci ormaal ko wet ko feeñ bu baax a baax suñu taxawaay juróomeelu ak bu ñu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy julli ci moom julli ci moom ñaaral te loolu jullit bi ngir mu taxaw ci teraanga la ci moom ndax mbir mu xam ne yàlla mi bind moom yónni moom moo ca jiitu keneen kum ca boole daf la ko terale yàlla subhanahu wa taala ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak ay malaakaam dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen ñi gëm yéen itam da leen julli ci moom te ngeen di ko nuyu ak nuyu ngeen di salmal ci moom ak salmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man salla alayya salaatan salla allahu alayhi biha ashra ci xadis bu muslim solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku xam ne julli na ci man genn ak julli yàlla subhaanahu wa taala dana julli ci moom fukki yoon euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaax xeet bi ne laa tajcalu buyutakum qubura wala tajcalu qabri ciida wa sallu calaya fa inna salaatakum tabluguni xaysu kuntum eh, seeni néeg bu leen ko def comme bàmmeel mu nekk ay tëddukaay kese ngeen cay ñàkk jaamu yàlla waaye it sama bàmmeel bu leen ko def feetukaay déedéet jarut di dajaloo di feetu di leen julli ci man rek fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna su ngeen jullee ci man tiyaa ba julli googa ñaan googa dana yegg si yonent bi saa sallam ci li ñu wax ne albaxilu alladi man zukirtu indahu falam yusalli alayhi ku nay dëgg dëgg dëgg mooy ku xam ne dañ maa tudd man yonent bi sallallahu ci teewaayam te julli wut ci man kooka mooy ku nay dëgg tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeggalañu ci di wax ne maa jalasa qawmun majlisan lam yadkuru llaha fii wa lam yusallu ala nabiyihim illa kaana alayhim tira fa in shaa azabahum wa in shaa gafara lahum rawahu tirmisi wa ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne amul ñenn nit ñu xam ne dañoo toog cib jataay tudduñ fa yàlla julli wuñ ci seenub yonent loolu ne loola nekk na ak wàññeeku ci ñoom bu xam ne ëllëg yowmal qiyaama bu soobee yàlla mu bugal leen ca soobee mu jéggal leen xam ngeen ne bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis nee na torox xam ne dañ maa tudd fa moom te julliwut ci moom ci man te loola jibril moo ko koy wax mu ne amin te buñ ñu xoolee ya ko jibril dendaleer rek won nañu dayo bi waaw dafa ne torox na waa ji nga xam ne weeru koor dafa teru fi moom ba jeex te jéggaluñ ko bàkkaaram neel amin yonent ne amin mu ne torox na waa ji nga xam ne ràññee na fekk kenn ci waay juram di dund wala ñoom ñaar te jëfalul leen lu tax ñu dugg aljana mu mu dugg aljana na torox neel amin mu ne amin mu ne yàlla na torox ki nga xam ne dañoo tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa moom te julliwul ci moom yi ñuy ci moom yu bari la ku mel ne xaafis ibnu qayim rahimahullah tudd na ci lu dem ci ñeent fukki place ak benn yoo xam ne bu nekk palaasu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci téere boobu mu tuddee jalaaw euh, abxaam fi asalaatu wasalaami ala xeyril anaam maanaam boo ci joxe misaal rek ci noddukat bi bu paree julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa biir taay da ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci bi nga salmale da ngay julli ci yonent bi tuddee aw turam ila euh, muy lu xam ne su fekkee ne seetantal nañ ko dëgg-dëgg daanaka jullit bi amul lenn lu muy romb ci dundam te dana tolloog mu war ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi ngay dugg ci jàkka ji wala ngay génn ci jàkka ji da julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa Euh, xam naa su fekkoon benn ngëneel buy ware ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rotut lu dul benn xadis bii may wax si konoon doon na doy te muy xadis bii euh, Cheikh Nasir tasxiix ci saxiixu Nasaa'i euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man salla alayya salaatan waaxida صلى الله عليه عشر سنوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات képp ku julli ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn julli yàlla subhanahu wa taala dana julli ci moom fukki yoon yàlla subhanahu wa taala dana ko sippil fukki ñaawteef dana ko teggil fukki ñaawteef te it dana ko yëkkatil fukki daraja mbokk yi kon tomb boobu di tomb juróomeel muy benn ci àq yi nga xam ne amee nañu ko sunu yonte sallallahu alayhi wa muy àq julli ci moom bu war a fulla wula ci sunu dund am na àq juróom benneel ci àq yi ñu amee sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam mooy war a àttewu ji ca moom war a àttewu ci moom te it war a gërëm ab àtteem gannaaw bu bu ñu àttee ba pare loolu àq la bu ko yàlla saxalal yàlla subhanahu wa taala ne yaa ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu arrasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا yéen ñi gëm na ngeen topp yàlla na ngeen topp yonent bi na ngeen topp it wala ma ne ak na ngeen topp yàlla na ngeen topp yonent bi ak ñi nga xam ne ñoo leen jiite ci seeni mbir diggante borom xam-xam yi ak ñu jiite mbiri àdduna waaye ñoom seenu topp du bu e- indépendant waaye dafa sofu ci topp yàlla ak yonentam yàlla ne su leen xëccoo ci mbir delloo leen àtte ci yàlla ak yonentam ndéem gëm ngeen yàlla ndéem gëm ngeen bis bu mujj ndax kat loola mooy la gën ci yéen te mooy pirihin wa gën a rafet delloo atte ci yàlla mooy delloo ko ci téere yàlla bi delloo atte ci yonent bi sallallahu wa sallam gannaaw faatum bu ba muy dund bu mbir gaaree dem ca moom lam ca atte ñu ànd ca loola bu fekkee ne gannaaw bu mu génne àdduna mooy delloo ko ci sunnaam mépp mbir mu mën a gaar atte ba nan ko delloo ci téere yàlla ak sunna yonent bi wa sallam loolu nag buñ ko waxee gën naa sori fuuf li nga xam ne ñu baree bari moom la ñuy ñëw ñëwee état bi attewuñu lislaam état bi attewuñu téere yàlla waaye balaa sori yow sa kër ndax atte nga kon téere yàlla bi ndax atte nga ko sunu yonent bi saa sallam balaa sori ndax yow sa dundu bopp bi sa bakkan bi ci sa diggante weet yi ndax attewoo nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa ngay géndeeku manque taxawaayu ñeneen tàmbaleel sa taxawaayu bopp yow sa bakkan bi ci sa diggantee wet ndax lépp ak loo nga ci yonent bi sallallahu wa sallam wala déet njaboot gi nga tiim yëngatu yi ngay yëngatu nga xam ne sa kàddoo cay daw ndax attiroo nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee loolaay la waroon am boo ko sàgganee bàyyi nga la la waroon tax na yàlla subhanahu wa taala di wax ne fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla subhanahu wa taala mu ne yonent bi maa ngi gën ci sa borom ne nit ñi ngëm gi ñuy woote du dëggu lu dul ba tañ la atteloo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lii xew ci réeru seen diggante te it nag bu ñu am genn ñaggiralu xol ca la nga àtt ci seen mbir waaye danañ romb foofu dañuy gërëm jébbalu ci njébbalu gu mat sëkk mbokk bu yaakaar ne loolu ci tribunal yi rek la aju ci tribunal yi rek la aju ah naka atte yi ca diggante njuufeen ak fayam nga xam ne tribunal jotu ci xamu ko ndax dañuy wax ne tribunaux yi ñoom saññoo génn atte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ci sunuy aada ak sunuy baax ak sunuy cosaan sunuy bëgg-bëgg sañ nañ ko caa génn aaya bi waxut ci tribunaux yi rek de déedéet lépp liy xew sunu diggante lépp liy xew sunu diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ca nekk attekaay te loolu mu ngi amee ci gannaaw bi mu génnee àdduna atte woo ci sunnaam ak shari'aam bi nga xam ne moom la ñu bàyyee loolu ci àq la àq ci àq yi nga xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam am na ko sunu koo ñu war ko koo mateel mataleel bañ a atte woo leneen lu li mu ñu indi moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu boobaa day daal di nekk àtte taaxuut même su fekkee ne sa xelum bopp la sa bakkanu bopp la sa aada sa cosaan la sa baax la balaa ñu dugg ci ay constitution ak juróom ñaareel ñu amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy war ci ko yàlla wàccee ci lu dul ëppal du gàttañu war koo wàccee ci place bi ko yàlla wàccee ci lu dul ëppal ci lu dul gàttajlu bokk na ci loolu liy firndee loolu mooy ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la waaye yonentam la mbooleem yonent yi moo ca gën ñu njëkk ñi ñu mujj ñi ci nit ñi ñëpp mooy seen sang palaas bu ñu gërëm ba ëllëg yowmal qiyaama moom loon moom dong la ko yàlla jagleel déegub naanukaay ba moom la ko yàlla jagleel waaye ànd ak loolu yëpp nag du tee ñu gëm ne nit la nit la ko xam ne moomalut boppam njariñ wala lor waxuma mu koy moomal kudul moom lu dul la soob yàlla subhaanahu wa taala te loola yàlla subhaanahu wa taala daf ko koo waxloo na ko annoncé nit ñi dégg ko qul laa amliku lakum qul qul laa aqulu lakum indi xazaa'inu llah wala aalamu alxayb wala aqulu lakum inni malak in attabau illa ma yuuxa ilay waxal nit ñi ne leen man de waxuma leen ne maa nga seeni yàlla yi maa ko yor trésor yàlla yi maa ko yor waxuma leen ko na ngeen xam ne xaw ma kumpa waxuma leen itam ne malaaka la defuma lu dul topp liñ ma wax yi doom naka noonu la yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi ne ko qul la amliku li nafsi nafan wala darran illa ma sha allah walaw kuntu aalamu alxayba lastaktartu min alxayri wa ma massaniya suu in ana illa nadirun wa bashirun li qawmi yuminun waxal nit ñi ne leen man moomaluma sama bopp njariñ wala lor lu dul la soob yàlla te xam ngeen ne moos man su ma xamoon kon doon naa bari ay yiw te dara lu metti wala lu ñaaw dut ma dal te loolu nag seede si feeñ na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam metti yi ko jot néewaan na ku mu jot ci kaw suuf mu ne na ngeen xam ne man nekkuma lu kuy tiital ñi nga xam ne dañoo bañal yàlla tey bégal ñi nga xam ne dañu ko nangu gëm ko yàlla subhanahu wa taala ne yonent bi qul inni la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min allahi ahadun walan ajra min dunihi multahada yonent bi waxal nit ñi ne leen man de mooma lu ma leen lor mooma lu ma leen jub waxal nit ñi ne leen man de kenn manut ma làq ci yàlla làq ma aar ma ci yàlla ba yàlla du dal sama kaw su ko naree déedéet te it awma fatuwaay wala dëgërlookaay ku dul yàlla subhanahu wa taala kon lan mooy sunu warugar mooy wàccee ko ca wàccuwaay ba ko yàlla wàccee ci lu dul ëppal du mat manteel itam di soofantal ci bii tomb laay jógee ñëw ci tomb bu bokk ci tombi àq yi waaye ma wax ne dama koo jox mu dama koo jox ab taaj ci waxtaan wi ndax foofa mbir mi méttee dëgg-dëgg gannaaw àq fi nit ñi séddale ko mooy diggante cofeel gu xam ne dafa làmboo ëppal walla daw ëppal ba far daanu ci ak mànkeel ak soofantal bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy àpp juróom ñetteel te mooy ñaareelu xaaj ci waxtaan bi dafa war a féetee koow bëgg gu nit ki bëgg waajuram wala doomam wala soxnaam wala mboolem nit ñi te it na rek mu bañ a nekk sax àq bu ñu ameel yonent bi waaye muy soxla su xam ne ñun ñoo ko soxla woo ngir pay gu rëy gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dencal na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ci xadisam ne bokk na ci fay gi yàllay fayee ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dëkk moom ci aljana loolu danañ ko gis ci xadis bu albuxaari muslim solo ca waaja wooxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kañ la bis pénc yonent bi laha lan nga waajalee bis pénc xam kañ la amut solo waaye waajal ko moo am solo loo ko waajalee waaji ma ne ko ah, man de waajalee huma ko julli gu bari wala koor gu bari wala sarax su bari waaye nag man ku bëgg yàlla ak yonentam laa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ëllëg yaa ngay nekk ki nga bëgg anas radiallahu anhu dafay nett ni mu ne saxaaba yi mosu ñoo am mbégte mu toll na seen mbégte keroog bi yonent bi waxee kàddu googu gannaaw lislaam gannaaw bi duggee ci lislaam amuñu mbégte gu toll na mbégte gi yonent bi ne nit ki moo ko mu bëgg ñooy nekk ndax amuñu weerante ci mbëggeel gi ñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, googu mbëggeel mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko mu ne salaasun man kunna fihi wajada xalaawat al iman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwaahuma wa an yuhibba almar la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yacuuda fi kufr kama yakrahu an yuqtaba fi nnaar rawahu albuxaari wa muslim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñetti yëf ku mu dajee ci moom kooka am na bànneexu ngëm yàlla am na neexintalu ngëm yàlla mooy yàlla ak yonentam gënal la kul yàlla ak yonentam ngay bëgg nit ki dara taxul nga koy bëgg lu ngir yàlla bañ dellu ci kéefee ni nga bañee ku la jël sànni la ci safara mbokk yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi nga xam ne ci la yàllay mayee nit ki neexitu ngëm ba mu koy yëg ci boppam di ci bànneexu dana ko jural mu bànneexu ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko nangoo supporté lépp luy jur ngërëmul yàlla subhanahu wa taala loolu nag la muy tegtale mooy kamel noona du sóobu ci yoon bu wuute ak la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci menn mbir mu mën a doon lu tax mooy ne parce que dafa gërëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ab yonentam mu bëgg ko mbëggeel gu xam ne féete na ko yi mboolem yi ñu tudd te nag mbëggeelu bu dëggoo fokk mu jur ak topp loolu moo tax waxkat ba doon wax naan taasi taasi al ilaha wa anta tudhiru xubbahu hada la umri fi lqiyaasi badi law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhibba liman yuhibbu mutia ngay mooy yàlla ba pare te di feeñal naan ku ko bëgg nga loolu nattukaay boo ko nattee day fekk mu juum waaye kay sën mbëggeel su dee dëgg daf lay jural nga topp ko ndax ku bëgg ku dafay topp la mu bëgg mbëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag du kàddu yi ñuy wax waaye am nay màndarga màndarga ya muy feeñee ba ca jiitu mooy di ko roy di topp sunnaam di taxoo ak ay ndigalam de moytu ay tereem teeg gi hinu ci ay teeg gi hinam moo xam ci jamonoy tar tar wala neex neex ci jamonoy jafe-jafe wala yomb yomb loola amul weerante ni jeexit ya jur duñu tuuti ci doomu aadama jeexit yooya mooy dëggal bu fekkee jeexit yooyu amul nag mbir ma duhut mbëggeel gu dëggu waaye ak woote woora ak tuddoo dong lay doon bu boobaa fii danañu teg ab laaj seenu kalam ñu ne lan mooy cosaanu mbëggeel ak it sunu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa nu muy demee ba tax mu nekk mbëggeel gu dëggu gu xam ne dana mucc ci ñaari mbir dana mucc ci ëppal dana mucc itam ci soofantal mbokk yi ngir ñu mën a wéral dëggantaan cofeel xam ne moom la ñu jublu ne moom la ñu war a ameel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy cofeel gi mu ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naas ajmain kenn ci yéen du dëggu ci ngëmam lu dul fekk man yonent bi maa ko gënal doomam gënal ko waajuram gënal ko nit ñëpp cofeel googu nañu xam ne benn principe la ci principe bi diina ngëm bu dëggu ci nit ki fekk melul ak yonent bi sallallahu alayhi wa noona mooy yonent bi gënal ko doomam gënal ko waajuram gënal ko mboolem nit ñi yàlla subhanahu wa taala teg na ci benn tëkku bu raglu bu xam ne ñëw na ci sootu tawba yàlla subhanahu wa taala di wax ne qul in kaana aabaukum wa abnaukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين mbooleem yi nit ñi bëgg ci àdduna yàlla daf ko dajale def ko ci menn mbuus ne yéen nit ñi su fekkee benn ci yii wala yii yépp moo leen a yàlla ak yonentam toog leen di xaar xaar leen rek ngeen xam ne kàccoor saay saay si yàlla du leen gindi boo xam ne ñu ne su fekkee seen baay ñoo leen gënal yàlla ak yonentam wala seen doom yi ñoo leen gënal yàlla ak yonentam wala seen mbokk yi ñoo leen gënal yàlla ak yonentam wala seen jëkkër yeeg wala jabar yi ñoo leen gënal yàlla ak yonentam su fekkee ne giir yi ngeen bokk ñoo leen gënal yàlla ak yonentam su fekkee alal ju ngeen di fàggu moo yàlla ak yonentam su fekkee commerce bu ngeen ragal ak pertaam moo leen gënal yàlla ak yonentam su fekkee ay wiira ay dëkkukaay yu leen neex ñoo leen gënal yàlla ak yonentam yàlla nga taal la ñii su leen gënal yàlla ak yonentam gënal leen jihaad ci yoonu yàlla leen tuuti xaar leen ba yàlla ñëw ak mbiram na ngeen xam ne yàlla moom du gindi kaccoor yi saay saay si ñu génn topp ñu yàlla du leen gindi moo tax euh, alqaadi ayaaf euh, bi muy leeral aaya bi dafa ne doy na sëkk ñaaxaate ak xippi bët ak ferdi ci waru garu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ak nekk gi mu nekk farata ak dansé bi nga xam ne laxasu na ci gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa na ko bi nga xamee ne yàlla wa taala tëkk yu metti la ci tëkk wane yii nit ñiy bëgg su fekkee ne tànn nañ ci lenn mu gënal leen yàlla ak yonente bi nañu xaar tuuti yàlla tëkku na leen ci xaar mbiram yemut waaye ña def loola yàlla kàccoor la leen tudde mu génn topp jeexalee ko ne na ngeen xam ne yàlla du gindi kàccoor yi te ku yàlla tuddee kàccoor ba pare ne du la gindi musiba féetewu ko ko loolu mu ko wax ci téere bi mu tuddee moom xadaya ci téere bi mu tuddee ashifa bi taarifi axwaali mustafa Euh, xam ngeen ne jàmbaar ju mag jooyu borom mandu gu nekk misaal boobu borom fit wu rëy wa al faaruq Omar ibn Xataab radiallahu anhu taxaw na taxawaayu cofeel ci kanam yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci mbir mu xam ne Abdullah ibn Hisham moo koy nekk ni mu ne dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu téye ci loxo Omar ibn Xattaab Omar ne ko yonent ni yow de maa ngi lay xamal ne yaa ma gënal lépp a doon ba mu def sama bopp rek lu dul sama bopp daal yaa ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wa ko ne ko laa والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك géñ naa ne ci sama bakkan nekk ci loxoom mu yàlla subhanahu wa taala géñ naa ci moom ne yëf yi du mat yow Omar lulul ba te ma la gënalee sa bakkanu bopp bi foofa la ko Omar ne ko yonent bi léegi yëg naa ne sax sama bopp yaa ma ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al aana yaa Omar al aana yaa Omar ibnu Hajar rahimahullah bi muy firi kàddu gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko al aana yaa Omar dafa ne al aana arafta fa nataqta bi maa yajib léegi nga soog a xam nga wax li war a am léegi nga soog a xam nga wax li war a am mbokk mbir mi kon dafa di mbir mu leer mu cofeel yonent bi sallallahu alayhi dafa leer ci mboolem jullit yi moo xam ña xam ak ña xamul waru garu mbëggeel boobu waaye nag terewut dañuy gis ay kuréel yu askanoo ci lislaam yu ëppal jéggi dayoo ci nuy woote woo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fa ñu yeggale mbir ma dana génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaadaru doomu aadama waaye nag mbokk yi ndax ëppal googu su nekkee lu ñu ŋàññi day tax ñu jàmmarloog moom ba wutal ko safaan bi nga xam ne day mujj yegg ci soofantal sant mooy déedéet ëppal lu ñu ŋàññi la waaye bañ ëppal warta jur soofantal warta jur ñàkk teggihinu sunu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci teggin ji xam ne yàlla subhanahu wa moo ko ko waraleel euh, nañu xam ne jullit bi dundinam yëpp fa mu ca war a féetee mooy lu diggu doomu mandu diggu doomu ci taxawaayam ci mboolem ay mbiram nag loolu nag jaamu yàlla ga ca la bokk waaye màggal yonenti yàlla yi itam ca lañ bokk jox leen seen àq nangul leen ko ci lu dul ëppal du soofental loolu dafa war a fii danaa ci def benn benn xawsayin ci tolluwaay bii ma toll maa ngi ciy wax ci wàllu mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi waaye am na leneen lu ko jege bu temu tey bi waaye bu tee ma borosaale ko mooy wàllu zikr li jot jullit yu bari ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jot jullit yu bari ci wàllu zikr diggante ëppal ak sooxantal am ñu xam ne dañoo ëppal lool ci buntum zikr am ñu xam ne soo ëppaloon ñooña naqari na leen ba for ñu soofantal ñoom ñaar tanewut morom ñoom ñaar ñëpp dañoo wàcc yoon ni nga xamee ne ci dafa wàcc yoon ci zikr ki nga xam ne dafa jéppe ëppalu waaju ba soofental moom it noonu lool mel nag dafa bari lool rawatina faf même ci ñun ñi wuyoo sunna boobu xaw su ngeen ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu xam ne mu ngi bokk ci acte yu gën a ba tax na ma beral ko mort ci waxtaan wi nii mu ngi bokk ci acte yu gën a yu ñu ameel yonent boobu nga xam ne ci sababam la ñu yàlla subhanahu wa taala di musalee ci safara ci sababam la ñu yàlla gindee ba ñu jot ci dañ ko war a ameel mbëggeelu xol ku dëgg comme ni mu ñëwee ci saxiixay ni ñu tuddoon ko sànq di ko waxaat mooy xadisu anas bi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum xata akuna ahaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wa naasi ajmain warugar la ci képp ku gëm yàlla gëm àllaaxira mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeel gu xam ne jeexit ya day feeñ ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la gënale ci kaw lépp lu ñuy bëgg commencé ko ci boppam waajuram doomam mboolem nit mbëggeel googu bokk na ci war-wari diine yi féete kaw dama naan la bëggeel googu benn car la benn la ci mbëggeelu yàlla subhaanahu wa taala branche la bu topp ci bëgg gi nga bëgg yàlla subhanahu wa taala lu ko mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màndarga la tegtal buy feeñal dëggantaanu mbëgg mbëggeel buy tegtale ne kii ne bëgg na yonent bi sallallahu danañ ko xool ca mandarga yu ñu teg dafa ca natt yàlla subhaanahu wa taala wàccee ko ci téeréem bi ba borom xam-xam yi tuddee ko ayatul imtihaan mooy ban mooy yàlla subhaanahu wa taala li mu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yahdikum allah su fekkee bëgg ngeen yàlla na ngeen ma topp su nga defee yàlla bëgg leen bi maana day feeñ ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëfam ay waxam ay jikkoom ak mbooleem ay mbiram am naa bu ñu noon lan mooy cosaanu mbëggeel xam nga sëriñ si nga xam ne dañuy jàngale dañoo xër ci lépp lu ñuy jàngale bu ñu indee tur wa ñi njëkk a wane ne tur wi ci lii la cosaana waaye ku mel ne ibnu qayim rahimahullah bi mu yegsee fii dafa can ci téeréen bi mu tudd ashifa mu ne almahabatu laa tuxadd ay laa yuzkaru laha taarif id hiya amrun yanbacisu fi nafs yas'abu taabiru anhu mbëggeel mënuñ ko wutel dayoo mënuñoo tudd xamle ne lii mooy mbëggeel ndax mbir la mu xam ne ci bakkan lay jógee dafay jafe nga man koo mellal ci wax ne nii la maa ngi fàttaleku benn muxaadara bu abul xasan nadawi defoon ci jamaa islaami ci booru 1983 Euh, mu ci doon wax lu mel noonu mu ne qaala alxukamaau qadiman shay'aani laa yaxda'aani li qaanuunin marsuum alxub walxarb mu ne fa ama alxub fa atrukuha lishucaraa wa ama alxarb fala sha'na lii biha walakin intilaaqa min haadha almasal aqul shay'aani laa yaxda'aani li qaanuunin marsuum ad daawa wa tarbiya ad daawa wa tarbiya Abu Xasan Nari ci muxaadara bu dafa wax ne mu ne ci wàllu xam làkk ak nañ koy tëggee yàlla may na ko ci lu yaatu te adabul hindi yi gën na koo jëmmal mu ne waaye ñaari mbir waxkat yi dañoo waxoon démb ñu ne Euh, tënkuwuñu ci reegal buñ ko mën a tënk ni nii la mooy mbëggeel ak xeex mbëggeel ak guerre mu ne bu dee mbëggeel nag moo melal ko dama koy bàyyee woykat yi rek am naa bu dee xeex moom man ama ci soxla waaye nag mën naa sukkandiku ca misaal boobu moom a wax Abu Hasan mooy wax mu ne mën naa sukkandiku ci misaal booba ma ne ñaari mbir mënuñoo tënku ci benn reegal bu xam du ko wàcc mooy woote jëmale ci yàlla ak yar jàngale mu ne man araada an yuxdia li man araada an yuxdia daawa li qaanunin marsuum yajni ala daawati wa yajni ala duaa ku bëgg tënk woote gi ci benn reegal ne nii rekk lay tëddi bu tuddee nurul nii da nga tooñ woote gi da nga tooñ wootekat yi fi ma li ma tax a indi nettali boobu rek mooy wàllu xamle mbëggeel ci boppam kon mbir la mu xam ne xamlekat yi dañ caa noppalu dañ ko jébbaloon ba xanaa dañ ne daal mbëggeel moom melokaanam ak xam ne mooy mbëggeel la ndax munoo wax ne mbëggeel poids bii la yor wala nanga mi meetar yi la yor wala nanga mi yi la toll kon mënoo koo jël ci dattukaay ci distance mënoo koo jël ci nattukaay ci poids kon da koy bàyyi ca na mu tëdd na tëddee lu mën a xew mën nañuy jéggi foofa ñu ne lan moo tax ñuy bëgg yonente bi sallallahu wa sallam xam naa laaj bi bu ma ko waxee ñu bëri dañ ne di laaj du laaj ah kay laaju yëngataat xol yi ngir ñu amaat yitte ci bëgg a dégg li ci kanam la lan moo tax ñu war a bëgg yonent bi sallallahu dañoo bëgg xol jëmbatu bu baax a baax bakkan yi yëngatu bu baax a baax ci yëg-yëg ci li ñu bëgg a wax ci wàllu mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa euh, yi tax ñu bëgg war a bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba ca jiitu mooy moom sopp yàlla bu mag te képp ku bëgg yàlla bëgg la yàlla bëgg moo taxoon sànq ma ne mbëggeelu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fara car la balance la ci bëgg yàlla balance la ca lu ca topp la itam ku bëgg yàlla kon fokk nga bëgg la yàlla bëgg te yàlla lu gën a màgg lu mu bëgg ci mbindeefam yi mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wan na ko wane na ko ci waxam bi muy bëgg a génn àdduna mu ne su ma doon jàppe kenn xarit ci sama àndandoo yi ci mbindeef yi kon Abubakar laa doon jàppe xarit walakin saaxibukum xalilullah wante seen waa xaritu yàlla la bu fàtt bu leen fàtt nag ne damaa firé baatu euh, xalil ni ma ko mën a firé ci wolof rek waaye gën na xóot ni ngeen dégg ndax euh, mbëggeel la gu xam ni rooxu na ci ay sadi seki deret jaar ci diggante yàq daraja bu gën a koowe ci mbëggeel moom mooy euh, xil la mooy ab xaritu boobu kon loolu war naa tax ñu bëgg yontu bi sallallahu alayhi wasallam ñaareel lu tax ñu war a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte daf ñoo feeñalal ak mat ci wàllu ñeewante ci wàllu yërmande ci wàllu cofeel bu mu amal xeet bi da ngay gis nit ki amal la yërmande nga xam ne yërëm na la rek nga dal di ko bëgg nit ki am na ñeewante ci yow nga dal ko bëgg nit ki amal na la njëriñ bu mu la njëriñ rek nga dal ko bëgg nit ki dana lay dimbale ci sa soxla nga dal di ko bëgg yooyu suñ ko nattee suñu diggante yonent bi sallallahu alayhi wa day fekk na yépp moo gaay yépp moo ci gaay buntu la bu xam ne dañu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ñu yërëmee ni mu amee ñeewante ci ñun amut lenn loo ko mën a nattalee mu dab ko yàlla mi ko bind xam la ca xolam yónni ko ci ñun seedeel na ko boppam laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminin raufun rahim yàlla ne ñëwal na leen yonent mu xam ne ci yéen la bokk waaye lépp lu leen di sonnal dafa diis ci moom ku am xelsi la ci yéen ngeen gëm texin nag am ñeewante ci yërmande la ci yéen bu ñu bëggoon a jël ay misaal ci sunu diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci melokaan yi yàlla jox ko dañuy sonn te duñ ko jeexal ñaata xadis ngay daje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan lawla an asuqa ala ummati kada wa kada lawla an asuqa ala ummati ñaata xadis su ma bañul woon a diisal ci sama xeet wi de kon nangam ak nangam su a diisal ci sama xeet wi de nangam ak nangam ñaata xadis ci ak yërmande ne nangam ak nangam yooyu muy wax yépp ñu ñeewante am ñeewante ci ñun moo tax defut loola xam ngeen ne même naafi la weeru koor ci mboolo jiite na ko ñaari guddi ba ñett ñeenteel ma mujj génn fekk jàkk jàkk ji fees dell ak mboolo ba nit ñi nekk ci biti mu tëjuwaat ba mu jullee fajar lan la wax dafa ne gis naa seen teewaay waaye ragal yàlla farataal ko ci yéen mu diis moo tax jiitewuma leen bu nga na ñeewantam ak yërmandem ci xeet yi laa yu tasawar moo tax euh, borom xam-xam tafsir dañuy wax ci aaya ba la ci sourate nisa euh, fii ibnu mas'ud radiallahu anhu di netti ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne damaa bëgg nga jàngal ma alquran ma ne ko nu ma la koy jàngalee te ci yow lañ ko wàccee mu ne dama ko bëgg a dégg ci keneen ku dul man ibnu mas'ud mu ne ma tàmbali bopp sourate nisa ba yegg ci fii yàlla subhanahu wa taala di wax ne fa kayfa isa jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haulai shahida yowma isin yoddu lazina kafaru wa asaw rasul law tusawa bihim al ard wala yaktumuna la xadisa ma naka bis bi nga xamee ne xeet wu nekk dañu cay indi seede bu kerogee yow la ñuy indi seede ci xeet wii innama son mu ne bi may ñëwee ci aaya bi yonent bi ne ma doy na doy na mu ne ma geestu xool ko fekk ay bëtam mu ngay bëbb ay rongañ bët yaa ngi yor rongañ borom xam-xam yi rongañ yooyu dañ ko firi ñu ne yonent bi li ko jooyloo fii du boppam waaye li ko jooyloo mooy ñetti mbir benn bi xam ne lii yàlla dige luy am la dana ko indi seede ci xeet bi ñaareel ba xam gi mu xam càggante gi ci aw xeetam ak yërëm gi mu leen yërëm ba pare ñetteel ba mu xam ne ci kanam yàlla du fa seede lu dul dëgg ko jooyloo bi maanaa am na ci ñun ñeewante ci xam ne dana yegg ci mu tuur ronga ñam fekk tuurul suñu ronga ñun bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne ñeewanteem yegg na ci même daan na kabbar julli moom moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne kabbar julli ma fas yéene guddal ma dégg xale buy jooy ma ñeewante yaayam ca jooyi doom ja ma far woyofal sama julli mbokk yi kon warugar la ñu bëgg ko